bismillah sëriñ bi radiyallahu anhu wax na ne diir bi ma nekk ci géej gi yépp day ni ma daa def ci weeru wolof ni ma ko daa xamee mooy dama daa def weeru wolof wu teru ma bind ko li ma ci jublu woon it mooy ñooñu ma fa nekkal di tubaab ak waa réew ma ñoom weeri tubaab yi rek lañ xam weer yi seen yoon newu ci moo tax saa bu weer teruwaan dama koy bind ngir di ko wàññi am na weeru koor woo xam ne ba mu ñëwee nag ma woor ko ba weeru jeex ba bisu korite ga ñëwee nag ma dog waaj def mboolem yi nga xam ne digle nañ ko ci bisu kori daal di génn ba ca pénc ma ma taxaw fa xool ndeyjoor xool càmmooñ xool sama kanam xool sama ginnaaw ba xam kenn dina ñëw ngir julli si xamoon naa ne sax kenn du ñëw nag ndax waa foofa seen xel sax newul ci yooyu ci laa taxaw nag di bëgg a tàmbalee julli julli korite bi ma demee bay taxawal ñaari gone yu jigéen ay jànq ñëw ba tolloog man taxaw di ma xool foofu fi laa kàbbaree tàmbalee julli bi ma kàbbaree rek ñu tàmbalee reetaan taxaw ci sama wet di ree fu ma kàbbaree ñu ree bu ma jàngee ñu xàqataay di ma ñaawal ak di ma fowe ma wéy ci noonu ba julli ko jeex ma sëlmal bi ma jullee ba sëlmal nag ci laa tàllal samay loxo suñ borom ne ko suñ borom yow de yaa digle woon ñu woor def naa ko ni nga ko diglee woor naa ba koor gi jeex tey jii bisub kori bi ma xëyee mboolem yi ñu digli ci bésu kore yi ma ci man yépp def naa ko dog naa julli ni nga xam ne noonu lañ ko diglee ci bisu julli lenn daal moo ma dese muy génne murum koor te dama koo amut amuma ko wax dëgg te su ma ko amoon sax ñii ñu wax ne ñoom lañ ko war a jox gisuma ci kenn fii ku ma ko jox kon maa ngi lay ñaan nga dolli xéewal ak tawféex sama sang ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñoñam ak i maa ngi lay ñaanit sa ndigal yépp yi ma ci mën jëf ko nga nangul ma jëf ci yi ma ci mënut it ngir tële ko maa ngi lay ñaan nga may ma yool ba nee na daal di bind ak xasida xasida goo xam ne mi ngi ko tàmbulee ci ala innani arju min alwaasii alxaqi bi jaahi almuqaffa naasiri alxaqi bilxaqi wax ne man kat mangi ngi yaakaar ci sun borom mu yaatu mu bari mi ci bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mangi ngi lay ñaan yow suñ borom nga doli xéewal ak tawfiq yonent bi mangi ngi lay ñaan ci barkem nga delo ma ci ma ma ci sama bokk ya daj ak sama gaña ak sama soppe ya. di wey di ko ñaan ne ko mangi ngi lay ñaan nga delo ma ci réew ma ci jamm ma yobale xéewal te bokk ko ma xew-xew bi nak mbokk des na ci jange lenn ci naqar ak mettit yi nga xam ne sëriñ bi daan na jànkoonteeg moom ci biti moom mii nga xam ne kilifa gu mag la woon fii mu nekk du woon rek benn waay bu doon dox noonu waaye kilifa gu mag a mag gu yilif lu bari gu yilif ñu bari gu ñu bari wéeru ci moom gu ñu bari yaakaar moom lañu fi génne digg ba bëccëg yóbbu ko foo xam ne nekku fa kennam ñu di ko def yu metti yi di ko tuutal di ko tooñ fuñ toll waaye loolu yépp nag teewul booba sunu boroom a ngi ko cee fàggul ay may ak i xéewal yoo xam kibatam. bi mu mom sëriñ bi ba tek ci bëtam ci la ne bis bi ma gennon ba dem dajeeg ciono yoy nak li ma ci amé dal sama cantuk bop sax xeeb ko ci ba taxna ma ngi wo ñepp ñu ñew di sant la suñu borom sa bis bi dellu